mu ne waan abdullahi bun kaab jëlee nañ ci abdullahi doomu kaab bun malik doomu malik wa kaane nekkoon na xaayida kaabin doom mat kaab radiallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm min bani ci doom yi ne amee ba mu gumbee xaala mu ne samant kaab bun malik kaab doomu malik yaa di su muy waxtaan daa di ci ci waxtaanam xëy taxalafa ba mu gannaaw an rasulillahi wali sallallahu alayhi wasallam fi xaswati tabuk ci xare tabuk xaala wax kaabun lama taxalaf musuma des gannaaw an rasulillahi bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi xaswatin ci xare xasaa xare na ko xatul mukk illaa fi xaswati tabuk lu mooy ci xare tabuk xeer an nii waaye na man xat taxalaf des naa gannaaw fi xaswati badar ci xare badar wala mu yaatab yeddun ahadun kenn taxalafa des na gannaaw anu ci xare badar ndax ina maa xaraja naka génn na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam wal muslimun ak jullit ñi yuri doona ña nga bëgg xeera Quraysh ala Quraysh ja ataa jamaa ba mu dajale allah ala taala kawe na baynahum seen diggante wa bayna aduwwihim ak seen diggante noonu ala xayri miyaadin ci lu dul rendez-vous wala qad saxitu teewee naa ma rasulullah nag yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam laylatul aqaba guddi aqaba ine tawaasax naa jamono bañ dëgëralante ala islaami ci lislaam wa maa uhibbu bëgguma ana li ñeel na ma bihaa weccee aqaba mashhada badrin xare badar wa in kaana di la nekk na badrun badar askara di gën a siw fi naas si nit ñi mi naa ci xabare wa kaana nekkoon min xabari di bokk sama xibaar yéen a taxalaf foofu ma desee gannaaw an rasulillahi bàyyi yonent yàlla bi salaa sallam fi xaswati tabuk ci xare tabuk andi ne man lam akun nekk moon xattu mukk aqwaa di gën a dëgër wala ay sara di gën a koomal min nii ci man yéen a taxalaf yow na ma desee gannaaw an wëlis ko fi tilkal xaswa ci boobu la xare wallahi maa ngi ci yàlla maa jamaatu dajalewuma qabla a njëkk ko raxali ñaari gërëm xatun mukk ata ma dajal leen fi tilkal xaswa ci boobu la xare wala mu woon rasulullahi yonent yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam yuridu di bëgg xaswa tam lu muy lënd mën la ko bi xëyraa ci beneen xare ata ba mu nekk tilkal xaswa boobu la xare fa xasa xeex na ko rasulullahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa fii xarin ci tàngoor shadidin bu tat wastaqbala jul na safaran tukki bàyyi dan bu sori moom mu faasa nag àll wastaqbala jublu na xaritan lim kasiran gu bëri faja laa mu feeñal lil muslimin ñeel julli ñu am room seen mbir léegi taxa bu pour ñu préparé oo ba taxas lim wàcc ay mu xibaar leen bi wajim seen jubluwaay ëllëg bi nga xam ne yooyu du bëgg na ko wal muslimoon julli ñi nag maa rasulullah ndax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam kasirun ñu leen walaay moom du leen dajale kitaabun téere xaafisun bi aji wattu yuridu ma nga nam bi saalik sura diwaana diwaan قال وانا كعب فقال لنا رجل غور يريد ذنب ان يتغيب مو فدم الا ظن لو من جرتنا ان ذلك نلولو سيخ فادر نبو بيك موم ما لم ينتل فك واتل فيك موم وحي وحي من الله بجيكي شاء الله دنگا وغزا قعنا رسول الله انت الله بس الله عليه وسلم تلك الخصوة بوبو لخيح هنا تابة جمال ومتى asimaru menyeri wa zilaalu fana man asxaru maa gën a jeng ila hajam ci yooyu fatajaxase hazamu préparé rasulullah yonente yàlla bi salaa sallam wal muslimun ak jullit ñi te fek jullit ñi maa ñi nga ànd ak moom wa tafiqtu ma commencé ak duudi xëy lii kay ata jaxasa ngir ma waaj maa ànd ak moom faar ji ma delluwaat wala mu àq di attewuma ci andara wa waa qulu may wax fi nafsi sama bop ana man qadiru atan la ajatan la ala zarik ci zaratu mo beugé faram isal dañu itamaara di continuer bii ci man ata samara ba mu continuer bi naa si nit ñi ak jiddu góorgóorlu ga faas baa mu xëy rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaadi yéen daal di xëy wala muslimoon te fekk julli maa woo ñu ngi ak moom wala mu àq di eh, eh, dégg nga defuma min jaasi sama wàccaa si dara su ma xatatu topp ma xëy fara jaxtu ma dellu wala ma aqdi defuma ci an dara fara may zal dañuy dee tamaa daa di continuer bii ci man hatta asama bañ gaaw wa tafaarata mu jiitu alxas wa xare ba faamamtu ma yittoo an arjaan an artaxila ma laxas foo dire ko ma jot leen fa yàlla it ne yélanti ko nag man faxaltu def naa loolu su ma lam yu qadar topp doogaluñ zaare ku loolu lii ñel ma fa tafixtu ma commencé isa xarajtu bu ma génnee fi naas ci nit ñi baada xuruji rasulillahi gannaaw génn yonente yàlla bi salaa sallam yaxzuru nii di ma jàqaloo nii ne man laa araa gisuma lii ñel ma uswatan dëgërluwaay maanaam roykaay illaa rajulan lu mooy góor maxmuusan buñ ayibal ali ci moom fi nifaaq ci naafiq wala buñ jam aw rajulan wala góor mi man ci nga xam ne azara dog na ngànt allah yàlla taala kawe na mi ne doon faay ci way lott yi wala mu yaskur nii tuddul ma rasulullah yonent ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ata balax ba mu jot tabuk tabuk fa xaala mu wax woote fekk moom jaari suñu aji toog la fi xaw mi ci nit ñi bi bi tabuk ci tabuk ne ma faal lan la def kambu bun malik kambu doomu malik fa xaala mu wax rajulun góor min bu bokk ci banu salama yaa rasulallaahi yow yonent bi xabasoo téye na ko burdaaw ñaari yërëm ya wa nasru ak xool fi net fay si ñaari wàllam ya maam noos geeg rëy gi moo ko téye fa xaala mu wax law ñeel ko muas bun jabal muas doomu jabal ne ko bii sa bon na maa xulta li nga wax wallaahi maa ngi gën ci yaa rasulullah yonent yàlla bi maa alim naa xamuñu alay ci moom illaa xeyran lu mooy lu baax fa sakkata mu noppi rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa bay naa huwa ba nga xamee ne moom yonent bara zalik mu ngi ci loolu raa gis naa juróom góor mu bay leen bi aji weex yazulu ma ngay dañ bi ci moom asraabu ñunux ga fa xaala moo rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekkal aba xaysama te aba xaysama faysa huwa nekk moom abu xaysama la al ansaari woowu moom alladi mooy ki nga xamante sadaqa saraxana bi saa in ci ñaari bi saa tamri ci ñaari kilo tàndarma هنا لما ذوبهم كأي بريء المنافق نافقين قال وأنا كعب فلما بلغني بما جتي أن رسول الله ينتهي عليه وسلم قد توجه جبلنا قافلا داجي يوم تبوك جوجي تبوك حضرني تيوال لما بتسي سمن جاقري فتفقت مكما أتذكر دي فاتلك الكذب فن وأقول ما يوخ بما أخرج شيئا لا يجي من سخطي شمرم غدا صبا واستعين ما يدمنك على ذلك شلول بكل زي رأي ci bépp borom xalaat mi ahli samay mbokk فلما قيل بن وخي ان رسول الله نك يونت يالله بسم الله قد ازل ين قادما داجي نيو ولا قد ازل جيغنا قادما داجي نيو زاح دمنا ني تي من الباطل تياخان حتى بما قام اني نمن لم ان جودو مو من تي موم بشين تي دار ابدا بفو فاجمعت ما دوغو صدقو وخو دغ واس با مو خير رسول الله ينت يالله بسم الله قادما داجي نيو وكان نكون اذا قدم بنيو من سفر جوغي تي توكي bada commencé na bil masjid si jàkka ya fa rakaa mu julli fi ci mom rakaate ñaari rak su ma jëra su tok mu tok li na si ñeel nit ñi vraiment faala ba mu defé zaalika loolu jaahu dikal nugo al mukhallafuna ñi desoon gannaaw yanta di ron di dog ngant ilay jëm ci mom wa yaxlifuuna ñuy gëñ law ñeel ko wa kaano ne ko nañ bidaan lu tek teg wa samaaneen ak juróom-ñett fukk rajulan ci goor fa qabila mu nang mi ci ñom ala niyatum lañ feñal wa bàyyi mu jaayanteeg ñom wa staxfara mu jéggalu lawum ñeel leen mu wakkal mu wakkil saraayum seen mbóot laa jëm ci yàlla taala kawe na xataa jiitu ba ma dikk ma nit vraiment salamtu ba ma nuyoo tabasama muuñ na tabasumal muxdabi comme muñ ak kuñ merloo su ma mu waxtaan la kaay fa jiitu ma dikk am ci di dox xataa jalastu ba ma toog benn idée yi ci kanamam fa xaala mu wax lii ñu ne maa xalafaka ana des loo gannaaw alam takun xalaa nekkoon xadib taxata di jënd zaxraka sa gërëm ga xaala mu ne xultu ma ne ko yaa rasulallah yonent yàlla bi inni naka man wallahi maa ngi ci yàlla daw ji rasul bu ma toogoon ànd ci kudul yow min ahli dunya si ñooy àdduna la raaytu danaa gis andi na man saaxruju danaa génne min sa xat ci meram bi usrin ci ngant ndax la xat jox nañ ma jadalan ak lay walakin waaye man wallahi maa ngi gën ci yàlla laqad alimtu xam naa layn xadastu ko su ma la waxtaanee al yow ma tey xadiisa kasibin waxtaanu fen tarda dana gërëm bii ci moom àndi ci man. léegi si kana dana xaw allah wala an yasqatika mu mer loola lee ci man waaye xadas su ko su ma la waxtaanalee xadisa sirk na waxtaanam dëggu tajidu da nga mere mm, dégg nga ci man fii ci moom laar ju laar ju maa ngi yaakaar fii ci waxtaan boobu waqbalaayi mujj ak yàlla maanaam njéggal ak yàlla ca mujj ga xasanoon na wajjala ta màgg na wallaahi maa ngi gën ci yàlla maa kaana nekkul li ñeel ma min ci ngant maa ngi gën ci yàlla maa kuntu nekk moon aqwaa di gën a dëgg ak xattu mukk di gën a dëgër ولا أي سرد دوتاعي دي جنا كمان من نيتمان هي تخلف في جمال وهو وتك عن كوريس لا قال من فقال ما رسول الله ينتهي بسلاسهم أما هذا وياكي فقد سلك وحنا دق فقم جغل حتى يخدمهم أتى الله يلا في كتيه وسار مدخل جانا يقول من بني سلمة يبوك في بني سلمة فاتبعوني من تقمه فقالوا إني وحدي نعلم والله ما عندي إن شاء الله ما علمناك قوم لا أذنبت أن باكار ذنبا باكار قبل هذا أنجك لكن عجز تلوتشنغا في أن لا تكون تيغانيك يعني تزات ديجيغلو إلى رسول الله جم في أنتر بس لازم بما اعتذر تيجيغلو إلى جم سموم المخلفون ويرس جناونا فقد كان نكون نكافيك دي رفق الزنبك سبكار استغفار رسول الله جيغلو ينتي الله صلى لكن يالله قال من فو الله ما نجنتي الله ما زالوا دنيم يؤنبونني دي ما يد حتى أردت مبق أنا جامع إلى رسول الله جمسي ينتي الله صلى الله foofu kasi ba moo fenloo nafsi sama bopp su ma xool topp mu wax la mu ñeel leen xal laqee ndax dajee naag xasali maa ngi ànd ak man mi ahadin ci kenn xaaru ñu ne naam waaw laqeew dajee naag moom maa ko ànd ak yow rajulaan ñaari góor xaalaa wax nañ misla maa qulta comme li nga wax waxee lañu wax la mu maa ñeel la ñoom ñaar misla maa qiila comme li ñu wax la ka ñeel la xaala mu ne qultu ma ne man mu maa kanakan la xaaru ñu ne muraratu bun rabi an amri ak hilaal bun umayya al waaqifi xaala mu ne fa zakaroni tudd lii ñeel ma rajuleen ñaari góor saalihiin yu baax xa shahida teewee nañ badaran badar fi kon fii ma nekk na si ñoom ñaar uswatun roy roy teef wala ndëgër laay xaala mu ne fa ma daytu mu wëy ina zakaruhuma bañ leen tuddee lii ñeel ma wa naha mu tere rasulullah yonent yàlla bi salaa sallam an kalaamina ci waxam ñun ayoo salaasa bi ñun ñett ñi min bayni man taxalafa ci diggante ñi des gannaaw nu wëris ko xaala mu ne fajtana bara mu teednu annaasu nit ñi aw xaala wala dafa wax ne taxayroo soppeeku nañ lanaa ñeel ñu xataa tere nag karat ba mu soppeeku lii ñeel ma fi naf si sama bopp ardu suuf si fa maa yee déet moom bil ardu di suuf alati bi nga xam ne enrifa xamoon naa ko fala bis naa ñu sax ala zalik ci loolu xam si ne laylatan juróom fukki guddi fama saaxi bàyye waaye sama ñaari àndoor yi parce que kaana toroxlu nañ waxaa daa toog nañ fi buyutu ma seen kër ya yëpp ki yaa ne ñu jooy وما أنا ويا من فكنت نكون أشب القوم ديجنا داوي تنينيا وأجلدهم ما تجنون دقر فكنت نكون أخرج ديجن فاشل ما يتوي الصلاة جل مع المسلمين أنك جلنيا وأتوف ما يور فالأسواق جي مارسي ولا يكلمني دوحا من أحد كان وآتي ما يدكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسلم من نوي عليه moom woo te fekk moom fi majlis yi mu ngi ci jotaayam faaqul may wax fi nafsi sama bopp hal xaraka ndax yëngal na cafata yi ñaari tuñam ya bi raddi salaami ci delloo nuyoo am laa wala déet su ma usalli topp ma julli xariban daa ji jege minu ci moom wawu saari xuuma di ko sàcc la nazara xool fisa aqbaltu bu ma jublu ala salaati sama julli nazara xool na mu yonent bi ilayya jëm ci man wajal tafattu bu ma gersoo nax woo jëm ci moom aarda mu dëddu andi ci man hatta yaa taala ba mu yàggee zaari kulool alayya ci man من جفوات المسلمين تبت نغل جولني مشيت دوخنا حتى تصورت بمتب جدار حائتي أبي قتادة ميرب طلب أبو قتادة با وهم ابن عمي سمو بون دوم باي تخلا واحب الناس وغنا صوب سنين إلي يجم شمانو فصلنت مني عليه تمام فوالله ما إن شاء الله ما رد دلون عليه تمام السلام نيو فقلت مهلون ينكو يا أبا قتادة يا أبو قتادة أنشرك بالله ما لا ينتبه الله هل تعلمون أن قمنا uhibbu bëgg naa allah yàlla wa rasuluhu ak yonentum sallallahu alayhi wa sallam fa sakata mu noppi fa wattu ma dellu fa naachattuu ma yentulu ko ci yàlla fa sakata mu noppi fa wattu ma dellu fa naachattuu ma yentuloo ko ci yàlla maanaam ma laaj ko ci yàlla fa qaala mu ne allah yàlla wa rasuluhu ak yonentum aaramu ñoo gën a xam fa faanir mu bëbbu ay naa sama ñaari bët ak ronkañ wata walaytu ma dëddu hatta tasawatu bu ma tëb aljidaara miir ba fa bay naa ana ba nga xamee ne man am si maa ngi dox fi suuqil madina ci marché madina isa si mbégteele nabatiyun benn këjug àll min nabati ahli shaami ci këjug àll ñoon shaam mi man ci nga xam ne xadima ñu jugee nañ wala bu andi nañ bi taami ci ñam yëpp yow di ko jaay bil madinati ci madina yaqulu ma ngay wax naan ma yeddulo kër moo may tegtal ala kaab bu malik ci kaab bu doomu malik fa tafiqa mu commencé annaasu nit ñi yusiroon di junjuloo ñeel ko ilay jëm ci man hatta jaani ba mu dikkal ma fa dafa mu joxe ilay jëm ci man kitaaban benn lettre min maliki xasaan ci buuru xasaan o kuntu nekkoon naa kaatiban aji bind fa qara'tu ma jàng ko fisa fii nekk nekk na ci amma baadu gannaaw mm, ba ma commencé sama wax fay noonu nag li am ba am xat bala xanaa jot nañu na saahibak na sa àndoor bi xat jafaaka beccingal na la wala may jaxal ko deful la allah yàlla bi daari hawaanin ci kërëg toroxtaane wala ma diatin du caagin kërëg sànkute fala xaq ñëwal binaa ci ñun نواسي كني دمبلي لا فقلت ما حين قرأتها بمك جانجي وهاجيري أيضا بتي من البراي من بوك سنفتي فتيمم تمجول بياتمم التنور بقرب فسجرتها ملكبا حتى إذا مدر بنوي أربعون ين فن من الخمسين سجرم فكي فني وصل بثمو يخ الوحي وحي إذا تنبت رسول الله رسول رسول الله ينتو ينتو يالبا ياتيني مميديكال فخالمون إن رسول الله أنك ينتو يالبا صلى الله عليه وسلم yaa muru ko mu ngi lay digal an temps si la nga beru imraataka sa soxna fa qultu ma ne ko utalliquha ma nax la ma koy fase am maza afal wala lan laay def xaaral mu ne bal li fi nekk i'tazilha beru ko falaa taqrabannaha bul ko jege. waarsala mu yónni ilaa saahibi sama ñaari àndoor bi mi si zalika si lu mel noonu fa qultu mu wax li imraati ñeel sama soxna il xaq yi demal bi ahlika sa njaboot fa kuuni nekk leen doom fa ñoom xataa yaqdi ba mu àtte allah yàlla fi am ci biir mbir fa jaar mu dikkum imraatu hilaal bun umaya soxnaa hilaal bun umaya mu dikkal rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal mu wax la woon ñeel ko ne ko yaa rasulullah eh e yonent yàlla bi inna hilaal bun umaya nag hilaal bun umaya cheikhul mag la daayoon bu màggat laysa nekkul woon ñeel ko xaadimul mindaan faal takkarawo ndax da ngay sib anax duma wu ma liggéeyal ko xaala mu ne ko laa di rek walakin waaye nag laa yaqraban nag bu mu la jege fa xaal mu ne innahu nag moom wallaahi maa ngi gën ci yàlla maa bii nekku ci moom min xarakati ci benn yëngatu ila cheyin jëm ci dara wallahi maa ngi ci yàlla ma zaara dañu yëpp kii di jooy munzu kaana dipp ba mu nekkee min am lii ci mbiram maa kaana la nekk na ilaa yawmi haza ba ci bisam bisu tayam bii fa qaala mu wax lii ñeen baadu ahli ñeen sama njaboot la wist ñeen samay mbokk la wista azanta lu tee nga diisoo rasulullah yonent ci yàlla bi salaa sallam fi am fi imraatika sa soxna faqad ajna digal na li imraati hilaal bun umaya ñeel soxnaay hilaal bun umaya an tax dumahu mu liggéeyal ko fa qultu ma ne ko laa astazina du ma diisoog fiyaa ci moom rasulullah yonente yàlla bi salaa sallam wa maa yudri nii ana lan moo may xamal maasa yaqul lan lay wax rasulullah yonente bi salaa sallam isa stasantu bu mu ko diisooyee waanaa man rajulun góor laa shaabun boo xam ne ndaw laa fa labistuma sax bi zalika ci loolu asra layaalin fukk guddi fa kamala mu mat lanaa ñeel ñu xam suuna juróom fukk laylatan ci guddi mi ngi ne nuxiya jamono bañ tere an kalaamina ci wax ak ñun su ma salee topp ma julli salaatal fajri julli fajar sabaaxa xam siina subaa juróom fukk laylatan ci guddi على ظهر بيت تجنا نك من بيوتنا سن نك سن يكون فبين انا بين خمين من جالس ادي توغلا على حالي في ملكا انتي بين خمين ذكرت ابنك الله تعالى كمان من الناس نيون قد داخت قدنا عليه تي من نفسي سما بكن ودا قد قدنا عليه تي من لا سوفسي بما رحبت لم ياتو سمعت دغنا صوت صارخ كدب اجي يخو او فا صبنا ما يغنا على صحيح سيدو صلاه يقول ما يوضع على صوتي تجن تاكو يكدون يا كعب بن يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك ابشر بقل فقررت مرات ساجدا اجي سجود وعرفت مقام انه من قد جاء ديكنا فرج اجير فاذن يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ني بتوبه لا يشتوب على الناس من من صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر جل الفجر فذهب مدم الناس ني يبشرون ادي بقل فذهب مدم قبل صاحبين sona ñaari àndoor yi mu basiroona way bégle wa rakkada mu gaawal rajulun ab góor ilee jëm ci man farasan fas wa saa mu dox saa in aji dox min aslama bu bokk ci aslama xibal yi jëm ci man waaw fa mu yéegal jabali sa doj ba ñu tuddoon léegi wa kaana nekkoon asawtu kaddu ga asra di gën gaaw sax mu faras yi ci fas fara maa jaani ba ma dikkee allazi ki nga xam ne samitu dégg naa sawtu yu bashiru nii mu di bégal dégg nga nasantu simmi naa law ñel ko saw bi sama yëre fakk sawtu huma ma xoddu leen iyaahu moom bi bisharati ci bég sababu bég léegi ma bég leen wallaahi maa ngi incha ma am li ko aw woon xëyru huma loolu ñaari yére yooyu boobu wastaxatu ma abbu saw benn ñaari yére fa labistu ma sol leen wantaraxtu ma dem at amoom maa ngi jublu rasulullah yonente bi sallallahu alayhi wa mu dajeeg man annaasu saxaaba ya faw jën mbooloo faw jën ak mbo ci kaw mbooloo yoo xam ne ni ñu ngi may ndokkeel bi tawbati ci tuub way xuloon ñuy wax lii ñeen ma li tax ni que ne la ndokk tawbatullaahi tuub ak yàlla ci yow ataa daxaltu bu ma dugu almasjida jàkka ja faysa ci mbetteel rasulullah yonent yàlla bi salaa sallam jaari suñu aji toog la xawloo war na ko annaasu nit ñi fa xaama mu jug talxatu bu nu ubaydillah talxatu doomu di gaaw ak di laanu ataa saafani bam nuyu ma boo ne ani mu ndokkeel ma wallaahi maa ngi ci yàlla maa xaama jugut rajulun benn góor mel ne muhajirin ci way gàddaay yi xëyroo ku dul talxatu fa kaane nekkoon na kaxbun kaxbu laa yen saaha du fàtte jëf jooju li talxatu ñeel talxa xaala wax na kaxbun xolama salamtu ba ma nuyoo ala rasulillah ci yonent yàlla bi salaa sallam xaala wax na wu te fekk moom yabruq mu ngi melxati wajuhu kanamam min suróori ngir mbégte abshir bégal bi xeer yow min ci gën ci bis mara romb na alayka ci yow mun mus waladal ka di dipp moom la juree umma ko sa yaay fa xultu ma ne ko amin indik naf si yow la jugee yaa rasulallah yonent yàlla bi amin indi laay wala ci yàlla la jugee xaaral mu ne laa déedéet ba li fi nekk mais indi laay moo jugee si yàlla asalaam dama jëlee tamit gënam wa kaana nekk na rasulallah yonent yàlla bi salaa sallam isa surra buñ ko béglooyee istanaara leer na wajuhu kanamam kaan na wajuhu mel ni kanamam xitaatu xamarin dogetu weer la wa kun naa nekkoon nañ naarifu di xam zaari kuréel mi ci moom vraiment jëlaat su ma toogee benn idée ci kanamam xultu ma ne yaa rasulallah yoon ci yàlla bi ne min tawbati naka bokk na sama tuub ana an xale am ma simmeeku min maali sama alal sadaqatan muy sarax ilallahi jëm ci yàlla wa ila rasuli jëm ci yonentoom fa qaala mu wa rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am si téen aleyka ci yow baada maalika leen sa alal foo moom xeyrul moo gën lakkañ yàlla fa qultu ma ne ko indi naka man um si ko danaa téye sax mi sama cër الذي بين بخيبر من خيبر وقلت ما يا رسول الله يننتي علي ان لا لك يا الله تعالى كما انما انجاني انك مسلمه بسرق الثوب دغ ومن توبتي انك بكنا سما توب ان لا احدث دوما وقتاني الا صدقا لمي دغ ما بقي دو فك ماغي ديس فولا ما نغي شان ما علمت قوما هذا كان من المسلمين شيورني ابلا وخير لك ان الله تعالى كما في سرق حديث جي واخ دغ من ذكرت دي بما تدي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن لغان رفض من ما أبلا أن يترى قولا يموك الله تعالى كبيرا والله ما قلت شهر ما تعمت مسماتي كذبة فن منذ قلت جب موحي ذلك لول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا بسم بسطي وإني لكم أن أرجو من يكار أن يحفظني موت ما الله تعالى كبيرا فيما بقي كيردس قال وانا فانت لم واتي الله تعالى كبيرا نلقى التابة نمو نتوب الله تعالى ala nabi ci yonent bi way muhaajiriin way gàddaay yi wala ansaar ak lansaar ya alladi ñi nga xam itaboo topp nañ ko fi saati on sat ci jamono jafe-jafe hatta balax ba mu jot innoo nag moom raawuf ak ñeewante la rahim ak yërëm na bi mu ci ñoom wa ala salaasati déggal la ñett ña alladi ñi nga xam ne xulli foo yéexee nañ seen mbir hatta isa daqat ba mu xat alim ci ñoom alaadu suuf si bi maa wax ba ci la muy yaatu yaatu hatta balax ba mu jot ittaqulaa ragal leen yàlla wa kuunate nga nekk maa saadiqin ànd ak way dëgguñu gis nga hmm? kon yàlla nee na dina am nañu dëgg ñu xaaral ma ne Kambou wallaahi maa ngi gën ci yàlla maa ana ma xewlul allah yàlla alee ci man min neematin ci xewal xatul mukk baari is xadaani gannaaw bu ma jubalee allah yàlla alee islam yi jëm ci islam azama lu gën a màgg fi nafsi sama bakkan min sidqi ci dëggal gi ma dëggal rasulullah yonent yàlla bi salaai sallam allah akuram moo ta mooy nekkuma kësabtoo di ko fenal fa ahlika ma halku kama halaka comme ni ma halkoo alladina ñi nga xam ne kese bu fen nañ ndax indi laa nag yàlla taala kawe na xaala wax ne li ñi nga xam ne kese bu fen fen nañ mu ne anzala ba mu wàccee al waxyu waxyu ga sharra ma qaala li xeet si la mu wax li aadi ñeel kenn ndax fa qaala fa qaala woon allah yàlla taala kawe na sa yàlla foon danañ gëñ billaay ci yàlla lakum ñee leen idan xalabtum ñoom dellu ngeen yéen jëm si ñoom li tool doo ngi ngeen dëddu bañ a yedd anum si ñoom faari doo dëddu leen bu leen yedd anum si ñoom innum nako ñoom riccum sobere kooku jëru sa yedd bu ma boom seen saxwaay jahannam moo di jahannam jazaan mbir muy fay bi ma kaaroon ci lañ nekkoon yëg si woon di ko fàggu yàlla woon danañ génn lakkum neen leen yi tardaw daw ngeen gërëm anum si ñoom fay tar tardaw nem gërëm ngeen anum si ñoom fay ne laa naka yàlla laa yar daal du gërëm dañu xaw mi ci nit ñaar faasi xëy na yow gën topp xaala wan a kaabuñu kun naa nekkoon xullif naa dañuy desal gannaaw ay wax salaasal ñu ñett ñi an am du ulaayika وليس بيرجعون الذين يأخذون خبر أن من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حلفوا بنجن يلو نيالكو وبايعوا مجاهن تنجم وسافروا مجيغل لهم نيالا وارجع ميخي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا سنبير حتى قدام أتى الله تعالى كون فيت من بذلك شرور قالوا الله تعالى كون وعلى الثلاثة يالله جيغل لن يتنى الذين يأخذون خلفوا يخنا سنبير يخنا سنبير وليس نكو الذين يأخذون ذكرت ابنكم ما خلفنا تلني يخي taxallufuna des gi ñu des gannaaw ne raxas yu waris xaraba déedéet wéy na maa woon ak moom taxlifu mooy yéexe gi mu yéexe iyaana ci ñun waaye jaawu ak ak yéexe gi mu yéexe am naa suñu mbir am man xalafa bàyyi ka nga xam ne gëñ na la wu ñeel yonent bi waxante mu doog ngante ilay ñum ci yonent bi fa xabre yonent na mu ngante minu ci moom mu tafakon xale yi hadis bi ñu dëppoo la fii ne dafa mel ni kenn moo jégul waaye mbooloo la mooy dafa wax ne ki nga xam ne jégul ñu moom yonentu nanga woo ngànte kooku moom yéexoon mbiram baal nañ ko ñun nag lañ yéexee parce que dañoo wax dëgg bu firi waaye ci beneen nettali am na na benn ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaaja génn na fii xaswati Tabuk ci xare Tabuk yowmal xamis bisu alxames nekkoon na yuhibbu di bëgg an yaxruja mu génn yowmal xamis bisu alxames ba fi riwaayatin beneen nettali wa kaana nekkoon na laa yaxruju mu du ñëw min safarin ci tukki ilaa nahar lu mooy bëccëg ci duha ci yor yor fa daa qadima bu ñewé ba daa commencé nag bi masjid ci jakk ja fa salamu mu julli fii ci mom rakata ñaar rak su ma jëra stop mu tok fi ci mom histoire ba ngoogu maanaam bëri na nag ay njàngat beul na njàngat yu bari bari bari bari parce que yu bari xewna ci yu lay won ay affaire yo xamni man nga ci jangal lu bëri ci diine hmm bokku na ci njàngat bi sante yalla da gis nga kan bu keroog ko yàlla jégal amoon na way ben yére la mo ben yére eh, eh, ku gën a néew ci ñun kenn xamul ñaata yére la yàlla kaabu benn yére la yor benn yére mu simmi ko maye ko xàbb yére hmm? moo tax hmm, jamono bii ku jaamul yàlla rek wax dëgg yàlla hmm, àdduna def laa këf rek waaye li yàlla joxe ci xewal bëri na lool par rapport ak saxaaba yi hasa in uridu lislam astantuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh